jërëjëf. waaw rek ñu donc euh, ngeen jéggal ma rek ma jël euh, suñu gars yi yaa woote. mbokki Sénégal nag dégg naa ndeysaan ñu bari dañoo am problème mu courant ndox ak lu nekk euh, ñu ngi jànkuwanteeg moom foofu wala. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw maa ngi ziyaare de. yow gis naa sànq ba léegi ndeysaan yaa ngi woote man voilà bismillah ah, man moom tey mooy tey mooy sama première fois may woote ci direct bi waaw macha allah macha allah yàlla na yàlla bu mu doon dernière fois ya, nañu continuer woote pour continuer xeexal Sénégal Ya, ya ya, ngi ya suivre tout ya temps ñoo na ko macha allah ya, na ngeen ci jëlee lu leen di njariñ pour ñoo ngi ñoo ngi koy ñoo am chaque jour ñoo koy am chaque jour ci motivation bi prise de conscience bi lépp. macha allah macha allah. di ñaanal di ñaanal président yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram. amiin amiin. tey de lu am Sénégal de. doo ah. am musuma ko gis Sénégal. amiin ah de. waaw am Sénégal homme politique yoo xam fortune bi nga gis photo Sénégal mosul am. te mhm. eh, Ousmane Sonko jokkuñu dara beroon sa jëf ko waaye ñun ñoo mhm. ko wala ñu def ko nii non mhm. di ko di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. Ah. musal ko ci mbooloo nit ko am da koy faagagal. amiin. waaw képp ku ko yéene lu bon yal na këpp sa kaw. amiin. parce que Ousmane Sonko c'est pas pour waa Pastef seulement c'est pour tout le monde Sénégalais yëpp a ko moom africain. en tout cas c'est un patrimoine. oui c'est un patrimoine patrimoine boo xamante ne même tey moom lépp lu ñu war a def def na ko Ousmane Sonko même ñaanuma ko yàlla même. tey bu nekkul dara sax mais Sénégal yi lu war a def ci Sénégal yi def na ko ba pare il a déjà accompli. en tout cas mission accomplie yee nañu de en tout cas ñun ñëpp yeewu nañu. Oh, kenn nelawatul ndax moom. man man man di wax yow la mais politique bi daal moo ci woon intéressé wu parce que damay naan ñii dañuy sàcc suñu xaalis. Mm-hmm. mais grâce ñëw na ba ma intéressé wu sama dëkk di di xool information di ci participer tout. Mm-hmm. Eh, di ñaanal ñaanal ñoom tamit di ñaanal parti bi tamit yàlla na leen yàlla musal ci seytaane vraiment merci beaucoup merci vraiment kontaan naa trop di la ñaanal yow tamit yàlla sàmm la amin ma leen di ñu ñu ñu ñun ñëpp yàlla nu yàlla sàmm jërëjëf kontaan naa lool merci waaw salaamaaleykum allo da ngay wàññi da ngay wàññi live bi wala nga fay ko waa allo sama sëriñ waa ñu ngi jéggalu de bismillah naka yi tey alhamdulilah baa yaa ngi si jàmm grand Ousmane alhamdulilah ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax ziyaare bismillah di wax ni insya Allah dañu nekk combat bi Ousmane rek baik. rek lañ ci bu neexee yàlla Allah amin jërëjëf soob yàlla parce que li nga xamante si ni suñu borom mu ngi koy defal di ko wan doomu muy am ba dara dul dara la ko suñu borom lañ ko suñu borom wonoon am na benn groupe benn groupe passé bu mos a dugg wax ni Ousmane Sonko garab gi jëmbat nañ ko nañ ko Mm-hmm. ma tiit sa wax ja ndaxte la ma ko wax loo xaw ma ko ndax dama doon xale boo xam si xaj na am na loo xam si mooy suñu borom woon waaye nag am na as boo xam war naa wax a waxee. Mm-hmm. ba ma ko waxee ma gaaw supprimer am ñu ma dégg ma gaaw message yi affaire boobu noonu xaw ma tuuti trop. Mm-hmm. mais mbir mi ni mu tëddee ba fi mu toll amul dara loo xamante si lu ci lu ci wàññeeku la lu yokk rek moo am. soo yàlla daal comme ni ma ko waxee woon garab bu jëmbal la ba taxaw kenn du ko mën a daaneel incha allah. ma Macky Sall na xam ne perte na lenn rek moo ko arrangé mu négocier ak Ousmane Sonko. pour su wàccee mu ko dox mais kulli xaal Sonko mu remplacé. incha allah. incha allah li nga xamante si daal suñu borom mi ngi koy dogal loolu moom suñu borom nam nam ba pare nan naa ni ko nangu rek mu dogal bu neex ak bu naqari si ñëw suñu borom def la incha allah en tout cas bu dajale woon bu dajale woon xërëm xërëmkat bi yëpp koy tax mu am ci ndam bu dajale woon doole àdduna bi yëpp pour xeex benn Ousmane Sonko mënu ko kooku mënu ko suñu borom def na lu mu bari muy mille cent hmm. hmm. mille trois cent treize ayatal kursi mille trois cent treize ayatal kursi ñu commencé ci lim bu ndaw bi di ko di ko wàccee ba si lim bu mag hmm. kooku buñ ko koy jàngal insha allahu rabbi Muhammad amee woon ndam sa xare ba daal danañ ko amee ndam insha allahu rabbi parce que lii nekkul dafa lu ndaw la ab xeex la ab xeex xeex système ñoom xeex benn mafia boo xam dañoo amul doole ñii ay ay ay délinquant la délinquant nag dañ leen xeex ci anam boo xam ne ñoom duñu gis duñu gis nga xam lii lu ko waral ak lu ko indi da leen di jaaxal à chaque fois da leen di jaaxal mm-hmm. loolu nag mbirum baatin la du mm-hmm. am na loo xamante si ni saahir ci la bokk waaye baatin bi si ëpp doole mm-hmm. mag ñàkk na ci ñàkk na ci ñàkk na si baatin kooku suñu borom def na ko. si dara bi euh, la fi jàppee tamit comme ni niñ lay ñaanal parce que boo xoolee Ousmane Sonko li lay yàlla li lay li su borom di xamal ni kii ku yàlla may la ñëpp ñu àndoon ak moom dañoo am tam. loolu mooy dëgg ñëpp ñu arrêté woon si des ñëpp lañu libéré mhm. te lépp ci xeex bi la ak engagement bi nga xam ne si patriote bi am patriote yi am nañ mhm. lay ñaanal ñu ngi lay encourage di wax ni fi nga taxaw foofu la bul ko wàcc. jërëjëf. waaw jaajëf merci kontaan nañ trop. merci merci asalaamaaleykum. allo. waaw ñu ngi ziare. waaleykum salaam. maa ngi ci jàmm. alhamdulilah. ñu ngi lay ziare bu baax a baax maa ngi tudd Maymuna maa ngi woote waaw ñu ngi leen di de waaw ñu ngi delloo yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir ñu ngi lay dégg. ah d'accord Ousmane Sonko moom ku baax la wax dëgg yàlla yal ko yàlla sàmbal. macha allah. bàyyi ñu ko fii ba deux mille musal ko ci noonu yi. waaw lan yi bon na ko yàlla la ñuy bon yi. amiin. yàlla lakk ko fa yàq àggoot. amiin. yoo tax liggéey bi ngay def nii na trop. Mm-hmm. yal la yàlla Amin. Amin. Ya, Amin. Ok, merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf merci. allo. ma seconde voilà. waaw maa ngi ziyaare de maa ngi ziyaare bu baax a baax soxna si barki bàyyi ña sax soxna si soxna soxna si soxna si ziyaar naa la bu baax nag. Ah, kon de mat kon de mat kon nag mat na barki Baye Niass ak Baye maa ngi lay ziare bu baax di la namm naa la trop nag. macha allah ñoo la raw. xam nga dama la namm. ah macha allah dama la namm namm sama frère vraiment dama la namm. macha allah macha allah rek macha allah. macha allah. maa ngi lay ziare bu baax di ziare sa followers yi. di delloo ziare. xam nga temps yi Sénégal dañoo am tuuti problème. suñu followers yi ñun ñëpp. suñu voilà suñu followers yi. wax nga dëgg suñu mana bi dama koy fàttali gars yi rek. lii du man ah, lii ñun la ñun la ñun ñun voilà waaw wax nga dëgg waaye yaay chef yaay chef de navire bi nag yow yow yaay commandant de navire bi bu ko bañ ñun la ñun xoolal xam nga fan yi lu mu dal mhm. fii fii parfois on a des problèmes de coupure d'électricité attends attends intense waxuloo ma loolu coupure ah. électricité de laa dégg coupure barki baay ñes ak baayam xam nga man moom dama laa yaakaar moom laa am non mais attends kaolax nga wax kaolax la 19 heures Kaolack ci boppam day coupé dix neuf heures day coupé ba vingt ba deux heures du matin. ak tàngaay bi am la coupé la coupé. wallaahi la azim moo tax fi ne damaa rëccu sax lu ma fi lu ma ñibbisee woon billaahi. Ah. États-Unis boobu nga xam ne nekk naa fa ba ay juróom benn weer yoo xam ne courant mosu faa coupé fii nag xuy xamet boo xam ne suñu matériel yi ñu ngi yàqu kenn xamul li lan la ndox it mu ngi manqué ba nit ñi kenn xamul fu ñuy jooyee lii ah. vraiment c'est regrettable ah lii war nañ cee jóg nag lii moom war nañ cee jóg ndax tàngoor moom ndox ak courant moom nit da ko war ndox amu fa courant bi les grandes puissances les les grandes puissances ñemuñu couper courant parce que dañuy liggéey. si nan la tëkkoo woon États-Unis il suffit que tey mu coupé woon cinq minutes rek mu raw ko ñoom ci chiffre d'affaires la ñuy liggéey même si ñu dañuy toog 19h laa la wax wallahi la asim 19h ba 2h du matin courant bi du du du xam nga lan la ñuy obligé uti ay uppukaay uppukaay yëfu maam yooyu ah. non uppukaay Sénégal am na fa nii ngeen di def nii. ci tàngaay bi waa man sama bosa ngi nii su ma la mënoon defal vidéo sama bosa ngi ñëw ma ñëw ma ko mu sori ma. Allah parce que courant bi day coupé fii. barki Bañes ak baayam léegi il se ah. partage ah non mais c'est inquiétant ça ça c'est pas normal. courant mooy coupé courant. courant laa la wax courant. en deux mille vingt et un nga xamante ne trente huit de trente huit degré Kaolack tey trente huit degré ci tàngoor. Ah. mu tombeeg jour boo xam ne da lay ne parfois nga am quarante degré muy coupé dix neuf heures timis laa la wax lay coupé ba deux heures du matin. tu es obligé de déterrer tout tes matériels parce que soo ko deful may lak man sama rajo offre baa ngi nii dafa lakk sama mu ngi nii dafa lakk. parce que dañ ko branché won ma fàtte ko di fi na lakk na je suis obligé de de trouver autre chose wala pour régler ko. moom moom fi ku 19 heures nee naa la ba 2 h du matin. Ah, uppukaay la nit ñi di yara léegi def sen néeg parce que parce que uppukaay boo ko amul do do do ki nous sommes nous sommes dans un monde boo xam monde à l'envers la uppukaay ngay mujj def sen li suñu yaay yi ak suñu papa dañ daan yore ah. ah xëy na waar maa lay ziare. waaw léegi ci suñu président bi suñu waa waaw boo boo gisee ma woote. waaw soo gisee ma wootee. parce que c' est un c' est un comme tout autre. di nga woy happy birthday de. la. yaa astu woy na tey di nga woy de. tey. joyeux anniversaire tey di nga woy. dégg nga rek waaw bu man ngay mbay ma rek xaaral rek dégg naa yaas bu bi sante ak yéen daal di jàngale mooy moom mooy xaw ma nit di nit ñi di yaa yaa astu mooy yow léegi nag tey di nga woy pour ñu mën a def différence waaw léegi attends non que je termine ma phrase d' abord Ibou Ngom mu mën a fet d' abord je lui souhaite vraiment waaw non mamal mamal Mamadou Mamat waaw non maanaam fen fen rek la ñuy def. mais nag il doon rajo il a il a su de il était c'était donc nit ku dul juum dañ koy jéggal rek nit ku dafa juumoon rek dafa juumoon donc. dafa jaawale woon parce que parfois bu yaa astu duggee dañuy wax ne est-ce que du man la dañuy jaawale donc loolu yàlla moo ko def donc nag euh, amul problème. moo laisse passer parce que xam nga aduna aduna boo nekkee un grand homme. da ngay da ngay xam di jéggale di jéggale du dëgg. loolu mooy dëgg da ngay jéggale di jéggale comme comme le fait Seydina Ousmane Sonko. Ah. soo gisee ma dugg parce que dama koy souhaiter un joyeux anniversaire. joyeux anniversaire bi ñu koy souhaiter dañuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla may ko gudd fan ak wóor yàlla. le ko dans le « parce que dafa n'est un sénégalais il n'est pas burkinabé il n'est pas rwandais il n'est pas malien c'est un pur sénégalais il est né ici il a grandi ici donc qui veut être

sa mbiimi kawlak tampi sa dum tampi ah. leta hay dum salum ala joni sin salum ala joni ko kawlak tampi kawlak tampi kawlak maayi sénégal ma tampi sénégal maayi a faami joni dañ koy souhaiter vraiment une très longue vie mhm. une longue vie vraiment remplie de bonheur vraiment de de réussite de réussite surtout nak de réussite de réussite mais nak man entre guillemets dama doon bëgg nak benn lancer benn motion mhm. moom moy lan moy il faut sécuriser ce cette personne là il faut sécuriser cette personne-là. Il faut la sécuriser. Mm-hmm. C'est une propriété privée, privée pour le Sénégal, je dis, entre guillemets. Pour Donc, il faut sécuriser ces dinars. Wow. Pour l'Afrique, ça entre très bien. Parce que là, il faut que l'islam qui était un panafricaniste, qui mhm. était un visionnaire. Donc, il a les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes engagements, les mêmes décisions, les mêmes positions que, que ce musulman, la nation, l'islam. Radiallah ta'ala anhu. Quand manque, il y a un goût de fan, yalla defal ko Euh, jàmm may ko wër may ko kàttan yàlla musal ko muccal ko yàlla lafal ko cat nag mhm. musal ko ci musal ko muccal ko lafal ko cat mhm. may ko fan bu gudd ak wër mhm. bàyyi ko fi suñ kanam lu bare bare bare bare sama baat na neexul na Seydina Ousmane dama lay ñaan rek ngir yàlla nga jégal ma woy bi parce que baat bi neexul <laughs> damay bañ yàq live bi daal dégg nga allez merci maa ngi nuyu ñëpp ñaa ngi koy souhaité ba joyeux anniversaire merci allez voilà jërëjëf jërëjëf jërëjëf voilà donc euh, gars je pense que mënoon nañ fi toog tey ba suba du ñu yeggali waaye comme niñ koy waxee mi ngi kat tampi man tamit xaw naa sonn léegi incha allahu rabbi nañu joxante rendez-vous fan yi comme ça ñu gën a yaatal waxtaan bi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu joyeux anniversaire au président Ousmane Sonko encore une fois